da wàccuwaay bi kawe lool te sëñ Touba moo ni woon dee leen jàng alquran ci lay yàlla di xame ni ci ñoom ñoñam ngeen bokk kuy jàng alquran yàlla xam ne ci ñoñam nga bokk dee leen jàng xasaayit ci ngeen di xame ni ci sama ñoñ ngeen bokk kon kuy topp toppatoo xasida di ko jàng dangay bokk ci njabootu sëñ Touba maanaam màggal euh, màggal xasaayit yi sëñ Touba yi wartiif la dafa war ci bépp jullit wartam ci bépp taalibib mourid mu xam ko ndax qasida ngi fajj aajo yi yoo xam sax kenn mënu la wax xol qasida ak wasilatu rubuh sëñ fallu moo wax ni ku sa aajo fajuwul ba nopi sax do ko am xol qasida hadaiqul fadail mag ñi xam deug dépense lañ koy wowe mënoo diko saxo do ñak di ñak dépense moo wakaana xaqan dépense la day dindi ba koor ngeen bi ko sëñ di talif gannar xoola xasidak sindi di kaaraange la xoola xasidak bismi waqaf foko jang jàng saytaane daw xoola xasidak toxfatu 70 personnes di ay walu buñ len dégrader dégradé ñu ñak seen cër boo ko jàngalee ñu rangaat leen seen cër soko jangé 13 fois ngir aajo aajo bi faju boko ko niw yalla jéggal ko bala timis toxfatul mutadariin xoola ba bisri soko jangé ba àggal ko nuyu yalla jéggal na xoolal jaalibatul maraaxi bi kër gu mu nekk ku fa dee yàlla jéggal la ndeem diw du fa tux ndeem dawkat amu fa xaj ku fa deewati génn yàlla jéggal la ci ma yërmande xasida gi mbokk yi bi sañ Tuubaa defaree ma Fatul Bisri ci Njolof joxoon na ko ñu wax sañ Kalle Sëy sëñ Kalle Sëy daana jàng ma Fatul Bisri am ci benn ngoon tàkkusaan jot sëñ Kalle Sëy nee na ma toog di jàng alxuraanul karim sëñ Tuubaa ñëw ni ko Kalle Sëy mu ko Mbàkke mu ne ko tëjal téré bi waxtu yalla wi jot na nga ñew julli señ sey tej kamilu alquran dem top ci ginnaw señ touba julli takusa ci ëlëk sa muy jang ma wal amni wal janna fi salati wa taslimi ala muqimi sunna señ touba romb ko waxu ko dara dem julli julli bopp señ kalle sey dem ci cheikhul khatim ne ko dembu dem bakke rombon nga ma ci yépp alquran waaye da ngaa wax naa ko tëj ñëw julli waxtu yàlla tey nga rom ma ci ma faasul bisri waxoo ma dara sëñ bi ni ko bi ngay jàng ma faasul bisri xeetu jàmm yàlla yëpp yaa ngi koy natal mbokk yi ma faasul bisri noonu la toll ci yàlla xam ngeen ni ak ala man alla yow lastu sadiq solo mu musoo sëriñ Tuubaa nee ku koy jàng ba nga tàmbalee ala man alla yow lastu sadiq ba keroog ngay àggal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy jël loxoom teg ko sa kaw bopp di la ñaanal ba keroog ngay àggal xasida gi mbokk yi alaaji Mbàkke Buso mi ñépp xam muy mbokk sëriñ Touba wax na ni am na soxna soo xam ni mag la woon te bokkoon na ci ñoo xam ni dañ koo xawoon a sax sàggane ngir ni mu sàggane woon diine waaye bi mu wàccee liggéey liñ ci bett ñun ñëpp sëñ Touba moo ni nañ ko taxawu nañ ko toppatoo alaaji Mbàkke bu sa nee na keroog mag ñi mu yónni ñuy taxaw soxna si dañoo am lu woon càngaay mu xaw a yeex sëñ Tuubaa ni far leen ko jullee noonu roppanoo mu xaw leen a jaaxal sëñ bi ni xanaa li ma leen wax jaaxal na leen ñu ne ko waaw mu ni soxna daal li tax ma ni comme amul càngaay denc leen ko gaaw noonu malaaka ma yi ñoo may topp di ma sonal naan dañoo yàkkamtee jot ci soxna si ba tàbbal ko aljana mu jaaxal ma lool ak ni soxna si meloon ma laaj yéen lu tax ngeen bëgg koo tàbbal aljana ñu ni daa am doom ji daan jàng mi daa di wa aqlaami li man zëhzëhal yamma doomam doomi soxna si moo ko doon jàng mbokk yi am na kook li mu def bàkkaar bu rëy la bi ñu ko indilee sëñ Abdul Xaadir moom sëriñ Touba baayam ni ko li tax mënta jébbalu de daa def bàkkaar bu rëy bàkkaar ba lislaam jëfandikoogul ci moom moo tax Mbàkke mënta jébbalu loolu rek kañu ci jaaxal sëñ Abdul Xaadir ni ko lu mu def mu nettali ko li mu def mu mel ni dafa tooñoon doomi jàmbur sëñ Abdul Xaadir ni def na lu ni tekk ba mu yàgg ni kenn rek a ko mën a dimbali ma faatul bisri daal ni nañ woo ko ko mokkal mu jàng ko ñu woo kenn ci mag ñi ci keesam mu jàng ma faatul bisri ba mu àgg sëñ Abdul Xaadir ni ko bis ni ki tey mel nga ni kuy dooru judd ci sa wéejur ci set ci Dakar ci dégg gi nga doon dégg ma faatul bisri ci sa nopp yi mbokk yi xasida sëñ Tuubaa dara wéccu ci la lepp nek cheikh sidi baba radiyallahu anhu gannar le dekk seut la ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam mooy maamam borom tariqa la ci yoonu qadiriya nitu yalla kamil le bu ñepp nang serigne bamba fonkon nako lol di bindante ak mom bolé won nako tam ci sëriñam ci njaal benam mu ngeen delo ci xasid ak sëñ ko tuddu bidaayatu suluk serigne touba wax na ni def naa ko muy serigne fonk lool booba na sëñ bi door a suub Cheikh Sidiya Baba dafa mës a laaj ni ko yow rek ka ma doy ci tonto ma lii ma bëgg a xam sëñ bi ni ko lu mu doon mu ni ko yàlla daf ma wan ñaar yu jafee xam nëbbu ma benn ñett lañu woon yu jafe waaye yàlla may na ma ñaar yi ma xam ko benn bi nag laa mënta fexe ba xam ko te yàlla wanu ma ko te wóor na ma ni ñi yàlla sàkk ñëpp yow rek a ma ko mën a waxaat ma xam ko sëñ bi ni ko yan ñett la la woon. mu ne ko ñaari la la mën wax ñom la xam señ bi ne ko yan ñaar ko yalla wan na ma képp ku mu sak ba aduna soso ba aduna dukki ku ci yanantu xam naa la man cheikh sidia baba ñi mu yónni ñu feñ ak ñi mu nëbb sëñ bi ne ko bismillah ben bu ko ñaarel mu ne ko kuy walli yu sunu borom ki feñ ak ki neub ki mat ak ki yem man cheikh sidia baba señ bi ne ko ñaar bu ko ñettel bo xamul te beggon ma wax la ko muniko ne ko ëhlullaahi laa xamul yàlla bu fekkoon dafa yor ak këram ña dëkke biir këruk sunu borom ñoñu la xamul mooy ëhlullaahi ñuy wër yàlla ñooñu la mën taxam ma bëggoon nak mbacké nga dimbali ma ci sëriñ bi niko xamna ko dina la ko xamal waaye ci kaw charte cheikh sidia baba niko lan moy charte bi muniko moy suma la ko sa xol da koy nangu bu ci sa xol sikki rek mën na la wañi cheikh sidia baba niko yow lo ma wax ak lima alcorane wax la yow lo wax wirna sëriñ Tuubaa ni ko ahlullaahi mooy ñi jàng sama xasaay bi dafa am bis sëriñ xaali ko nettali yàlla yàlla dolli ko leer sëriñ xaali sëy anhu bokkoon ci mag ñi daan jékkatil sëñ bi am na air bu siiw ci asiiru ma al abraari xiina asiiru wa zannal ida anni asiiru daana ko yëkkati ba léegi isbu tarqiya yàlla yàlla dolli leen tawfiq roy nañ ko ci eeram yu neex yooyu sëriñ xaali sëy nee na dama mës a ànd ak yenn ci mbokk yi ci kër gi ñuy jàng xasida di ko yëkkati ndeke booba ko tedd ki mu ngi ñuy may nopp nee na ba mu yàgg mu fëgg ni ana ñooñu nee na ma ne ko nun la mu ni nun la day dolli laaj ñan nee na ma ni ko xaali sëy sa mos nee na sëriñ bi ni tigi ak kan mu ne ak serigne mouhamadou touré kamado serigne bi ni hmm ak kan mu ak serigne ahmad tasrif zugu serigne bi ni hmm ak kan mu ne ak serigne mohammed lamine gay neena serigne bi ni ciel waxatul dara ta ñun ñent rek taxawon ci ginaaw kër gi jang neena mu jikki ni delu ñew leen fi jige sima yeen ñi netali sama mbind momu ma wax leen ngariñ yu bari yu ci nek neena nu wiri ba jige cheikhul khadim muni qalisa andi jang sama qasay di ma tagge yaram bi ñu ko waawaaw Mbàkke sallallahu alayhi wa sallam nee na sëñ de man mi bind xasaayid yi dama mel ni njanaaw ni xam ngeen njanaaw picc bu mag ñu ni waaw mu ni man mi ko bind noonu laa taxawe yéen ñii di ko nettali ànd ak baat bu neex di ko yëkkati te yàqu leen ko di ko toppatoo te yàlla rek tax yéen yéen a taxaw taxawaayu laaf yi man mii njanaaw bi yéen ngeen di laaf yi ñi koy déglu seen xol di tooy ñu ciy def seen alal ñoom ñoo taxaw taxawaayu donk yi ni ndax ñanaaw mën naa naaw dem bàyyi ay laafam ak i dunkam ñu ni ko déedéet mbàkke mu ni kon sax leen ci sama xasaayid yi su ma naawee jëm àjjana yóbbaale leen loolu ci xasida la ko wax xaadima baaba jaxumpa radiyallahu anhu bokkoon ci mag ñi nga xam ni altine moo daan àtte bawol gépp talaata mu àtte kajoor gépp mbër la woon mu mag ci yàlla ku yéeme di naaru darman ko bokk ci sëtu yaramtu bi féete fii ci njaariñ fa lañ ko robit mu nga tëdd foofa yàlla na yàlla dolli ko leer sëriñ xaalima baaba jaxumpa mu yéeme moomu nga xam ni mës naa dëgmal sëñ Tuubaa ci kër gu mag gi te mag yi kër gu mag dañ ko fonkoon ba bu nee tëll ñu ni lislaam ñëw na lislaam lañ ko woowe ndax xam gu mu xamoon islaam ak teeg xam-xam yi mu ñëw di dëgmal sëñ Tuubaa sëñ bi daal di koy xool muuñ ni xaadima baaba jaxumpa xaadib kajoor ak bawol loo àtte tey mu ni sëriñ Tuubaa li ma àtte mooy yow rekk laa xam ci imaam boo xam ni julli gi nga jiite gis naa ñaari maamum ci sa biir sàppe yi nga leen di jiite te keneen ko dul woon yow di imaam di leen jiite dañ ko sàbbaal mu jamat juum sëñ bi ne ko yan ñaari maamum la mu ne ko Ibrahima Faal ak sëñ Mbàkke Buso ndax kii sariya kese lay doxe du faat wenn waxtu julli muy sëñ Mbàkke Buso kii di Cheikh Ibra Fall aqiqa kese lay doxe yoonam ko ci julli googu te ñaar ñii ñëpp yaa leen ilif ku leen jiite woon julli nag ku dut imaam bu mel ni yow dinañ ko sàbbaa ndax di nga juum sëñ ba amoo moroom ca ña weesu amoo ko ci ñi teew doo ko am ëllëg sëñ Bamba di ko teral ni ko àtte nga tey lu wér sëñ xaalima baa ba jaxum ba moomu 22 la wàcc liggéey 1922 bi mu wàccee liggéey ñu denc ko njaarim doomam sëriñ Ahmadou Muxtaar Jaxumba dem bis di ko siyaare ci xabroom foofu ci njaare bi mu ko ziyaaree ba àggal ñaan jóge fa ñëw fekk sëriñ Touba biir kër gu mag mu ni ko jàpp loxo nuyu ko sëriñ bi ni ko Ahmadou Muxtaar Jaxumba foo demoon mu ni ko ci sëgu njaaree mi ana loo fa doon def mu ni ko sama baay laa doon ñaanale di ko seet sëñ bi ni ko lu ngeen waxtaane tey mu ni tekk di xool sëñ Touba. sëñ bi ni ko noon naa dangaa mënta waxtaan ak ko faatu waaw mënaguma ko de mbàkke mu ni ko topp sama xasida yi dina ko mayub jaam ni ko xanaa xamoo ni xaadima baaba jaxumpa fonk gu mu fonkoon sama xasida yi moo tax fële mu nekk ci barsàq bis bu jot ñuy waxtaan mag moom te loolu kat waggar xasida yi rek moo ko may te maam ibraahima Ibrahima Fall baabul muridin ni nga xam ne yoon wi moo ci raw loolu la yàlla dogal ndax mooy baabul muridin mooy buntu yoon wi te sering bamba dem na de waye lu ñenti na ngeen ci tey magalam gi xam ngeen ni sëñ bamba ko wotel bopam 1921 bisu talata ca njaarim amatal sasin kon digelu sëñ be jomam ji sëñ tuuba ko santanel bopam avant muy dem domam yi sëñ tuuba domam du reer du reeral ko ko top ndax ku ci nek jox na lu yor jamono domam yi xasaayidam yi ñoy ay tankam ku ci top di ka jariñ ci sëñ touba cheikh Rafaa ko wax dafa am ci jamono sëñ touba da daan top tolo mag ñi ay nda ñukoy rot maton na ñetti téméré nda ak fukk ak ñett buñ ko rot suba bu timis de jot nda yépp ay jeex tak kenn du xam lu koy naan ba bis am ku ñi wax mor jaar ci mag ñi la woon mune ni man dal warna xam li jeexal li neena benn bis rek genn gan ñëw laal ci ndaa yooyu benn naan ci sëñ bi génn timis ni sama ndaa yi ngeen doon door kana ko laal ñëpp ni ceel mag ma jug ni ko man de maa ko laal mbàkke damay doxandee maroon tànq ci naan mu ne ko bu mu la dalati ndax ni ma amee taalibe yi nit ni naa ni laa amee taalibe leneen te dañoo seexlu doomu aadama te boobu ba léegi ñu ngi àkk si ni ndaal yi dañ koo seexlu ndax nit naa laal na ko dañoo mujj tànq ndaaloo lu yaa koy tuur mun na ngeen koy bàyyi xele bu ñu ko laalati moor jaara moomu nee nag ma bàyyi ci xel ni comme sëñ Bamba wax na ci loolu lu mat bàyyi xel a ngi nee na benn bis ñu tëdd ba xaaja guddi ñaari waxtu ci guddi ma dégg luy kun ci ndaa yi ma nit loolu taxoon may génn di xool lu mu war a doon nee na ma yëddu gis jëmm joo xam ni bopp baa ngi rëy bopp baa ngi sëq kawar kawar yaa ngi wër fépp ba ci wagg yi mu sëpp gémmiñ gi ci benn ndaa di naan bi ma ko gisee muy sëpp gémmiñ gi naan Mor Jaara nee na ma tiit daal ne ko eh yow la kan nee na mu ni xuneet xool ma ne man la mi daa di wa aqlaam yi ci laa xamee ni kon xasida dafay nekk jëmm ngir xettali ñoñam ñi koy toppatoo bari na ko sa aajooy faju te si nit boo teg sa néeg di ko wormaal ci sotti ko gëtt parfum moo la ko moo faj sa aajo bari na ko aajoom di faju fekk ñuy jàng xasida ak sëñ Touba nga teral leen moo faj sa aajo bari na ko aajoom di faju toog déglu xasida ko fu ñu koy jàngee faj aajoom am na jëmm joo xam ni mënta jàng xasida ferul ubbi daa amoon ajaaba nii xayru baaxin fii xatta mu teg ko ci këram jël parfum yi mu gën a neex di ko sotti ci kawam rek ne ko xaside ko gàtt nga mënuma jang de waye dama lay man gi serigne touba ngi la benn guddi jot mu genn dem di ñibbi ci neena na ñeenti agresseur dal di koy koj nar ko néewal doole poñe ko ne ko li nga yor jox ñu ko mu ne tee dimbali ñu ne ko di ngi jox sa xaalis wala ñu ray la nee fi mu jaaxlee menn ponkal mo ni dere dal di leen di door bañu daw mu dal di dag nangu seeni ngànnaay té dal ni waju bax demal nga ñibbi ñi ay say say la ko gestu ni ko ku bax ya bax ya mu dimbali tay su ak yow dinañ ma toroxal jël sama alal yow la kan mu ne ko mo ne xam nga ma de mu ne ko xawma la baxé ma su tur ngir li ma defal ngir jëmmi señ toba mu ne ko man xam nga ma may ajaabali bi nga tek sa kër di ma do soti parfum ma ñewon di xentali ni wërañ dem yoon Touba sama kasai yi Al ci alquran laa koy tànqe di ko jële lawhul serigne touba moni kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fiha nabihun yaqilu kitabati sama bind man serigne touba min lawhi rabbi ci alliway sunu borom tunqalu lañ koy tuxale la yamtari du werante nak fiha ci wax ji ma wax nabihun ko yewu ko xamni yaqilu mu ngi xelam kon ku ci werante moy xamagul dara serigne Touba ci bopam mo ni sama qasida fe la koy tànqe wax ni sama da fay créer mbegum yanant bi wa xana julit bu ne bëgg war nga bëgg yanant bi de tabasamal mukhtaru min jinasi, munzu bada bihi bukal khanas sëñ bamba neena sa saa sunu sama qasida yanant bi muñ sa suñu yëkkatee sama xasida iblis daw làqu joy ko ne war nga bëgg yonent bi di am ndam iblis di ñak xasida day waral lool serigne touba wax ni kitabati tubashirul mustafa wa inda iblis tafuqul midfa xasida ñu ne ko wa mu ni day bégloo yonent yalla muhammad alayhi salaatu wasalaam waye ngannaay la ci ab julit digeentem ak iblis ba du ko mën ñaare deng ba tay jànkatub jalibatul maraqibi bi du ko ñor lu wer la qasida jalibatul maraqib boko takko takkoo caaxaan dootu la ñor da ngay mujj bayiko ma qasida gi bindo non soxla wul ku koy jang diko durus caaxaan di la ñor lu baax lay ñor tayit tek ca bu seigne touba wax ni wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi yalla ya yow mii sunu boroom xam nga rab bi mooy yàlla waaye rab tam dafa am verbe rabba bii firi yar wa bi kitaabati ci sama mbind mii rab bi yow yàlla rab bi yaral kulla mu taali in képp kuy aji yër bii li wàcc xi rab bi ngir sa jëmm ci kon ku ko jàng yaru ca mafaatul bisri mu wax ni wa bi kalaami isfi sudóoral qawmil muuminiina moxniyan an law mi wa bi tawaali fii anir xuluuba man yaltamisuuna al ilma fii kulli zaman yàlla maa ngi lay ñaan na nga saafaraal ci darajey sama mbind mi na nga ci saafara xolub képp koo xam ni am na lu ko gaaroon ba mën mënta bëgg aw yiiw wala lu baax ci yàlla na ko saafaral xol ba yàlla sama mbind mi na nga ci leeral xolu képp kuy wuti xam-xam ba xam-xam jàppandi ci moom waaw kon li nu sëñ Tuubaa créel tegal na ko bind ko muñ mën a waat ni sëñ bee ko taalif ay doomam daan ko jàng sëriñ sooy bu suba ku xëyee alxuraan lay jàng ngoon gi mu jàng xasida sëriñ fàllu xasida rek la bëggoon sëriñ saaliw nuuru daarin rek la daan jàng